Euh, ba mu nekkee stagiaire ba léegi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi non yow da ngay jaawle defal nag da ngay jaawle doucement il faut faut pas aller trop vite yow ba nga may interview si des étudiants si des représentants des étudiants association bi déglu ma rek defal nag waaw non xam nga confusion nit ñi dañuy déglu ñuy déglu duñu xam te il ne faut pas euh, mais boo am na loo yor dama lay interviewé waaw da ngay déglu rek soo dégloo ñu wax la soo ma laajee ma wax la defal nag rek yow ba may interview j'étais représentant des étudiants j'ai représenté les étudiants pendant des années 2015 laa arrêté de représenter les étudiants

sama succession. ñu ma remplacer. non Yves xam nga dama bëgg a comprendre. da nga ne non Yves dafay représenter xam nga y' a les les les mots ont leur sens. Mm-hmm. n'est-ce pas doyen. il dit je représente les diplômés sans emploi mais Yves yow tu es toujours diplômé sans emploi. à l' à l'instant je le suis de façon provisoire parce que man nag nekkuma ñi man ak ñi ma àndal nekku ñoo xam ne dañoo toog di nelaw il demande à l' état de faire c' est des qui font. des gens qui créent des entreprises di dugg génn mais tey soo amee entreprise tey en tant que jeune mënoo am accès au marché da ngay déposer da da ngay déposer euh, kii dama encore agrément ba sonn. ñii tey moom je confirme. maa maa ngi ñëw parce que xam nga tamit euh, c'est trop facile xam nga Sénégal dañu nekk dëkk boo xam ne doo xam ne les tenants et les aboutissants soo déggee rek commencé def jugement ñu am na y a même qui se disent comment un diplômé peut sans emploi mais euh, tey le médecin qui a été formé la fac de médecine a maintenant si l'État ne recrute pas il n'a pas une clinique privée il est chômeur. il n'est il est diplômé sans emploi. il n'est mais Yves. parce que am na différence bu ndaw am entre diplômé sans emploi et diplômé sans emploi am na moo tax ma la ne soo comprendre wala soo teewul ji rek mën nga def erreur. waaw te erreur yooyu noonu. waaw Yves. mais li moo wax léegi les leur sens. léegi mën naa la le fait que nga créé ay entreprise kon yaa ngi liggéey te yaa ngi liggéey liggéeyloo amaana sax yeneen yeneen nit. donc mën nañ la mënatuñ la. moom kay nee na pare na moom mënatul bokk. non nen du troisième mandat yi. sëñ bi xam nga yow. instant bi sëñ bi tamit dafa bëgg a xam pour. waaw mais yaa ngi dellu ginnaaw man wax naa la. waaw ah, mais dafa bëgg mu leer nag. bu dégg wax naa la dama la ne ñun suñu association ñi ci nekk ñëpp pratiquement amul kenn koo xam day xëy dëdd naaw am na ñoo xam ne ni ubbi nañ tey transfert d'argent mais ils ont des problèmes à avoir des financements pour doxal loolu parce que ñun suñu objectif c'est pas que ñu ñuy jox liggéey suñu objectif mooy ñun ñu jox liggéey ndaw yi nekk ñun ak ñu ñu wër ak ñuy bàyyi suñu kër ak boo yi nekk université c'est ça notre objectif nous nous voyons plus loin que les gens là qui. mais encore mais encore faudrait comme li nga wax ngeen am accompagnement. très bien foofu laa jëm. c'est ça da ngay am projet projet ci réew mi bëri na fi ñu koy la war a mën a nekk ci réew mi war man am naa possibilité toog ba may jógee France di ñëw Sénégal di gis di ba may sans emploi nit ñi dañ doon nekk est-ce que ça va donc ñun dafa am philosophie bu ñu am. ci Sénégal ñëw UCAD kon da nga. damaa jógee UCAD dem France ñëwaat. voilà am na lu <laughs> rek ci fii bi c'est pas le plus important parce que c'est pas la personne de Yves qui est importante xam nga qu'est-ce qui est important aujourd'hui les médecins qui sont formés qui sont au chômage c'est ça qui est important. am na lu tax ma laaj loolu. ensuite parler de l'immigration. waaw maa ngi ñëw may ma may ma ñëw ce qui est important aujourd'hui <laughs> c'est c'est de parler des des infirmiers qui sont formés qui ont des diplômes qui n'arrivent pas à trouver un travail ce qui est important de parler ce sont des gens qui sont formés en lettres en droit qui n'arrivent pas à être dans le privé ou dans le public. parce que tey emploi ñett la pratiquement ñetti soubassement moo ci ëpp doole. Mm. soit c' te prend. te yu bëri actuellement bëggatuñ sax loolu. bëggatuñu liggéey état liggéey dans bi secteur privé ñu accompagner ko des jeunes si les jeunes sont chez eux pendant un an deux ans quatre ans cinq ans ils ont de l' expérience ils pourront aussi sortir comme l'a dit. moi je moi et nous nous avons toujours proposé quand les gens sont déjà étudiants ñu am possibilité de stage que stage soit obligatoire ñu def saa xam ne balaa suñuy paree day fekk moo ko lay liggéey suñu demee ñu dugg fenn Cheikh Modou Ndiaye wala chez chez chez chez wala chez euh, Demba foofu benn cinq ans am expérience créer seen bopp dem léegi loolu tey day tax. waaw waaw pour mën en plein emploi euh,